Les gens qui font le tour du pays disent que les Sénégalais sont mal éclairés. Ils ne disent pas aux Sénégalais combien de Sénégalais ont pu bénéficier de cette électricité. Certes, il y a des problèmes, mais constatons qu'il y a eu une nette amélioration. Donc on fait face à des gens qui ont décidé de manipuler, de saupoudrer, ou voire même de réagir ou de poser des actes qui ne sont pas du tout patriotiques parce que dirigé par l'intérêt personnel ou par une haine qui ne dit pas son nom. Je ne dis pas que nous avons un système parfait, mais aujourd'hui, le président de la République a quand même réussi à sortir le pays de certaines difficultés. On nous parle de problèmes de jeunes et de chômage. C'est vrai, il y a des jeunes qui chôment, il faut le dire. Mais ils ne vous disent pas que la formation professionnelle a triplé ses capacités en cinq ans. Ils oublient de le dire ou ils ne le disent pas parce qu'ils ils ont tout simplement envie de nous déstabiliser ou de nous sortir de l'essentiel. Ils disent que les paysans sénégalais sont fatigués, c'est vrai. Il y en a qui sont fatigués, mais ils omettent de vous dire que les productions agricoles ont été doublées. Certes, nous sommes dans des difficultés, mais jamais dans l'histoire de ce pays, on a été à si bon port pour aller vers l'émergence. Voilà à quoi est-ce que nous allons nous attaquer. Rétablir la vérité. Anticiper sur les manœuvres. Ils sont en train de tout faire. Ils disent qu'on est incompétent, on n'a pas de diplôme. Eux-mêmes, ils n'ont même pas la capacité de présenter des diplômes. C'est vrai, ils disent qu'on est incompétent. Mais toi, dans ton CV, tu ne mets pas à fréquenter Sciences Po Paris. Non. J'ai fait deux semaines à Princeton et on taxe les gens d'incompétents. Ils disent qu'on n'est pas transparent, qu'on est en train de magouiller, mais toi, tu n'as pas coupé des arbres à 500 000 francs l'unité. Ils disent qu'on est nébuleux, mais moi, je n'ai pas un compte à la belgolaise. Qu'est-ce qu'ils nous reprochent D'endetter le pays pour construire des infrastructures qui solutionnent des problèmes auxquels on sera confronté dans 50 ans, un milliard de dollars pour faire le TR, pour transporter 115, millions, 115 000 Sénégalais par jour, on dit qu'ils sont entrés d'endetter le pays. Et malheureusement, c'est ce qui l'anime, ce sont les mêmes gens qui ont emprunté 110 milliards pour organiser le FESMA. Et quand vous vérifiez, ils se sont endettés à 8,5. Nous, on s'endette à 6,7 parce qu'on est crédible. Arrêtons ce débat qui ne sert à rien. Madame Mimi Touré n'a pas intérêt à avancer des chiffres qui seront démentis le lendemain. Même dans l'adversité, il faut se respecter. Nous combattons pour les mêmes causes. Aujourd'hui, autant que jamais, nous serons solidaires tay lañ gëna bolo and parce que fiñu jëm totul Mambay du Mimi du Maysa du Aliou Sow du Karim du Nenn du mawo du du du du Aliou Sow du du kenn réew la ndax dinañ xex wala duñ xex dañuy xex parce que ñi ñuy xëccool duñ ñu may dara paré nañu wax lu dul dëgg paré nañu sos pare nañu nax nit ñi te ñoom jëfuñu fii lu tax ñu war leen a wóolu li may wax nii ci lu leer laa ko teg ñan ñooy wax Idrissa Seck nee na amuñu kàddu moom bëccëg ndara kàmm jant bi ci digg bi mu ni sénégalais yi bu ma delloo ci ab Ablaye Wade double abomination mooy war naa ci diine war naa ci ngor tàgguwul kenn midi mu dem dugg ci pale bi kooku war nañu wax ñun amuñu koo xam ni jàngoo fenn c'est que noo teg say wax rek ci jàng borom xam-xam ko ci université Sciences Po bu Paris ba paré ni ingénieur man contrôleur aérien la auditeur en certification ñi mo classe ñi ngi fi nga classe ñi maître euh, Ablay, ñi nga bokkal fédération ñi ngi fi ñang ENA ba nga jangé ay sénégalais lañ ñu nga say diplôme mais def Princeton ana sa keuyit kan nga fa nekkalon def Sciences Po ba taxaw di nit en fait lolu lañ problème c'est que qui sommes ñun suñu cër mooy dañuy sénégalais on va parler aux sénégalais et on va parler particulièrement à notre génération ndaw yi un problème lié. moi je le dis je suis très bien placé pour savoir que ndaw yi un problème problème Il y a un problème de chômage mais nous, ne xam ni 45 des jeunes ont amuñu qualification C'est ce du nous avons ñun Nous ni que enseignement professionnel.

àndul nawle lañuy ànd tey maa nekk ministre suba mën naa nekk leneen menace yëngaluñu parce que mas nañ ñoom menacé bi ci ëpp firnde sama ma sœur Thérèse fii lañ tolloon daal ni kenn du fi campagne campagne nañ wala campagne ñu campagne nañ wala campagne ñu dëkk bi da na a leb leb leb leb yow nga leb cent dix milliards jox sa doom mu defee ko lu ko neex tëgg ak fecc président ni sax teg naa ci loxo pour bañ a tëj doom ak kii après ngay wër dëkk bi naan noo dossier yi mu teg dëkkam dossier yi mu teg loxoom protégé wuñ kenn li mu ñuy menacé ñu ngi koy xaar suñu avenir ah man de bu ñu gisee fausse facture xam naa ni Macky Sall du xaar beneen régime man lay njëkk a dóor. buñ gisee fausse facture ci mën nañ ko génne bu ma waxee ni que damaa jënd ceeb te jënduma leneen na ko indi c'est que nañu bàyyi wax ji ñu bañ a xas nit ñi ci seen waaso bañ a xas nit ñi ci seen judduwaay wax ji du loolu njariñu réew mi la fii amul kenn ku fi tànn kan mooy sa papa kan mooy sa yaay donc kenn du ci àtt ñun on un débat juste équitable bu tegu ci ngor ak dëgg pas ci ay naxante loolu moo ñu boole koo fi jël fii nii mën na wax li may wax dàquma leen a jàng gënuma leen liggéey gënuma leen jege président li ñu daj ci parti bi moom laa daj fii am na ñu fi jiñ ay coup fii am na ñu fi ñoo xam ni nit ñi mere nañ leen fii am na ñoo xam ni lu nekk dal na leen fi dañoo booloo parce que dañoo bokk gëm-gëm dañoo booloo parce que dañu bokk lu ñu yaakaar dañoo booloo parce que dañu gis fi muy jëme réew mi dañoo booloo parce que bi mu koy bind daf ñoo laaj suñu xalaat dañoo booloo parce que nag ci réew mi la ñu bokk

ragaluñ len ragaluñ leen de mënuñu ñu ñun li ñuy def ci dëgg lañ ko tek motax ñu gëm ni ko yàlla dinañu jox ndam musu leen gis dëgg ak ay sos di xaré en fait en réalité c'est ça le combat c'est le combat entre le vice et la vertu tel qu'il l'avait dit lui et moi c'est ça c'est-à-dire faire de l'affabulation pour tromper les Sénégalais indil ñu ay ay alcorane fekk ndekete yaangi ngi nekk ci lu la neex il paraît que Wad Daphné, a waa man booy bi fan la jëlee c'est que heure bu attaqué ça sera disproportionné particulièrement pour lui parce qu'il est animé par de la haine qui ne repose sur rien même les gens de notre génération qui sont avec lui il les a compromis bi ci mujj mooy sama xarit le man Yankoba Dougal na ko ci ay tooxi dooni ba IGE épinglé ko moom loolu lay jàngal suñu waa génération loolu moo tax ñu ñu war ko xeex ci loolu lañ jëm nag duñu daw duñu daay ku xeex dañuy xeex ku xeexul dañuy xeex njariñu réew mi moo ñu tax a jóg jàpp naa ni wax ji mën na eggale jërëjëfati gars yi merci beaucoup